boo leen wax si lu ëpp solo ci seen dëkk mooy la mone ku xam nga ku si wax ñu ne la kenn du ko foowee mooy dañ ko def sujet tabou ku si wax ñu ne la lii boroom xam-xam yi ñoo si war a wax xam nga lu ñu war xam mooy le débat devait être posé euh, préférence nationale vraiment moom la ñëpp bëgg donc mais soo amee candidat soo soo demee waaw non waaw soo amee candidat bi nga xamante ne jubluwu si fii ba dix ans wi di jeex est-ce que moom jël na engagement balaa dix ans yi jeex mu xool lu muy fexe ba Sénégal am monnaie boppam maintenant xam nga moom nekkul nekkul si loolu il est dans la continuité historique il est dans ça. la continuité donc, dynamique. il est dans la continuité historique ba nga xamante ne la continuité dynamique je te rectifie. la continuité dynamique non non tu ne rectifies pas tu fais tu mets des des qualificatifs. ce qui est sûr c'est une continuité boo xamante ne amulul njëriñ Sénégal. ah non kooku non ce jugement là ah, amulul njëriñ Sénégal maintenant. lu am fu mu toll nii mooy sujet yoo xamante ne sujet de rupture yi Amadou Ba su faloo Sénégal ni ñu ko daan doxalee lay doxee ba léegi mooy euh, gis benn acteur politique boo xamante ne dina enrichir ay nit di baal ay entreprise di def ay euh, évasion fiscale di euh, jël ay nit yoo xamante ne parce que base politique la am mu nommé leen poste jël nit Sénégal boobu noonu la ñu bëggatul fu mu toll nii Ah, ndaxte Sénégal boobu noonu. d'accord mooy la rupture. d'accord maintenant rupture. mën ñu ko am ak Amadou Ba. Ah, Amadou Ba maintenant continuité. xam nga démocratie nga wax am na ñu bëgg continuité. am ñoo xamante ne. Mhm. ils sont à l'aise dans ce système.